dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gii di réew mi ko di quotidien xëy ci parti bii di APR ak jafe-jafe yi nga xam ne ma ngi si maanaam ñol-ñol yi ndax bëri na ñoo xam ne jamono ji dañoo mere lool ki nga xam ne mooy Macky Sall bi nee na la nga xam ne moo ko waral am na si ñenn ñoo xam ne dañoo ànd ak Macky Sall xeex ba mu jot ci nguuru te nag jamono ji ngir ñu gis Macky Sall maanaam ay jafe-jafe yu métte métte la ñenn ñi nag amuñu benn poste boo xam ne daat nañ leen koy jox loolee moo tax am nañu bëri ñoo xam ne ñoo ngi ci biir APR dañoo mer ba détaillé am na ñoo xam ne maanaam dañuy génn di wax li nga xam ne moo leen metti waaye nag am na si ñoo xam ne li leen naqari maanaam dañoo toog di ko muutuwaale journal bi nee na ñenn ñi nag li nga xam ne moo leen gën a metti dañoo gis na Macky Sall dafay dooleel ñi nga xam ne ñoo ko doon xas doon ko saaga démb maanaam transhumance yi la Macky Sall gën a fonk ka ñi nga xam ne maanaam ñoo ànd ak moom xeex ba ma jot ci nguur raa yéen a kaay gii réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb daat nay wax ne nga xam ne dàq nañ ko Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo loolee mën naa andil Macky Sall ay ñol ñol ndax Moustapha Mbacké maanaam bëgg-bëggam moo nekkoon mbooleem koo xamante ni mer nga ci biir APR wala gisutoo si sa bopp maanaam mu ñoddi la taf la ci wetam ndax lu mel noonu gisoon nañ ko ci parti socialiste bi mu dàqee Khalifa Sall ak AFP bi ñu dàqee Malick Gakou yéen kaay gi de mu ñu xamal la ñu am ba des te ñu mën koo wax mooy Amadou Ba mi nga xam ne maanaam yàgg nañu koo tuumaal ne dafa bëgg a wuutu Macky Sall dafay rogo jeeru li nga xam ne na am ne jugoon nañ sax wax ne maanaam Amadou Ba a dàq président Macky Sall jamono ji maanaam ma ngi surveiller bu baax a baax a baax ki nga xam ne maanaam mooy Amadou Ba ndax Macky Sall bu ñu waxante dëgg dafa desee wóolu ki nga xam ne mooy Amadou Ba journal bi di direct news mu xëy di ñu xamal lan ñu en tout cas ni nga xam ne moom lañ yoree réew mi am na ay jafe-jafe yu rëy yoo xam ne am na ci machine bi nga xam ne maanaam moo war a doxul réew mi jamono ji mën na ñoo wax ne dafa grippe te nag réew mi bu ñu fi andiwaatut poste premier ministre ci ay jafe-jafe la réew mi jëm ndax njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam fast track la waxoon ci réew mi waaye jamono ji show track la ñu fi gis nag li nga xam ne moo am ba des mooy parti bii di APR bu si Macky Sall andi wut ak jubbanti maanaam lambay ñaawan jamono ji APR sore wut ak arme mexicaine kenn xamul kii mooy kaa kenn ku nekk jóg di wax te ñi nga xam ne ñoo waroon a wër Macky Sall di ko dooleel ñoom ñëpp Macky Sall daf leen a néewal doole ku ci mel ni Amadou Ba ku ci mel ni Aminata Touré Aly Ngouille Ndiaye Mohamed Boun Abdallah Dionne Makhtar Cissé Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo ñii ñëpp Macky Sall da a néewal doole journal bi nee na jamono ji Macky Sall bu ñu koy song di ko yàq musiba ak mbelengaan ñi nga xam ne ñooy jóg di ko défendre maanaam mën nga leen ci ay baaraam yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy ci Abdou Karim Gueye xurum xàq mi nga xam ne ni ki démb daan nañu koy may ab bàyyam néeganiku waaye nag li nga xam ne mooy ñuul ci soow mi presse privée bi nga xam ne ni ki démb ñoo demoon tribunal te yàgg a couvrir li nga xam ne maanaam moo fay xew ni ki démb dañu leen a tere na leen du ngeen dugg ci tribunal bi loole nag waa Synpics daan nañu koy ñaawlu a baax yi nekk ci ëtt attakaay yi maanaam syndicat boobee mer nañu ba futu ndax nee nañu Macky Sall ci boppam njiitu réew mi dafa war a respecter li nga xam ne mooy signature am te nag am njiitum réew signature am dafa war a fort ba nga xam ne lépp lu mu si signé rek dafa war a xool ba xam mën na koo jëfe wala mënu koo jëfe ñoom nag li nga xam ne gis nañu ko mooy Macky Sall respecté wut ab signature waaye respecté wut engagement yi nga xam ne maanaam jëloon na ko ndax dafa am ay décret yoo xam ne signé woon na ko ngir ay réforme ba léegi ni France dali xëddeen liggéeykat yi nekk ci ëttu attakaay yi ñoom nag daat nañuy tuumaal maître Malick Sall ndax Malick bi ñu ko waxee la mu leen xamal mooy décret yi Macky Sall signé woon loolee contexte électoral la te loolee nag lu doy waar a doy waar la diggante njiitu réew mi di Macky Sall ak waa Touba mbaadu dafa am ñol-ñol journal bi du Source A mu xëy di ñu xamal lan ñu dafa am benn projet boo xam ne toll na si ñaar fukki milliards ak ñett jëm ci autoroute deux voies maanaam li wër Touba boobale projet ginnaaw bi ñu tegee xeer wu njëkk wi ci kanamu Serigne Bassirou Abdou Khadir état bu Sénégal dafa waxoon ne njeexantalu avril ci atum 2019 dina daal di pare waaye nag léegi nii France dali dëxante na sunu xëyee ci réew mi ñu leen di wax ñi amee hypertension artérielle ak ñi amee diabète insuffisance rénale maanaam ñoo ngi dee comme ay weñ bu mu leen bett journal bii di Le Quotidien moo xëy di ñu ko xamal ndax nee ñu bëri na ci réew mi ñoo xam ne am nañu ay feebar yu doy waar doy waar yoo xam ne ñemewtuñu dem hôpital ndax woppi coronavirus te nag am na si ay hôpitaux yu bëree bëri yoo xam ne maanaam tëluñu ñi amee hypertension artérielle te nag ay a andi yoo xam ne plus rek maanaam la ñuy wax journal bii di Vox Populi mu xëy di ñu xamal la ñu déndu Afrique lu toll si juróomi téeméer ci ay junni amee nañu fi coronavirus ñi nga xam ne ñoo si faatu toll nañ ci fukk ak ñaari junni yéen kay gii di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak directeur général bu SICAP di Mamadou Kassé daat nay wax li nga xam ne moo ko jëlee SNHLM wax na projet yi nga xam ne SICAP dana koy sumb nee na sax liggéeyub SICAP dana génn Dakar ba wër réew mi di Sénégal wax na tamit lu soxal jafe-jafe yi nga xam ne SICAP am na kooku woppi coronavirus gi kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Sitor Ndour la mu xamle nee na Alioune Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk CNG maanaam mënatul te dafa war a jugee te nag am na pétition boo xam ne lu toll si juróomi junni maanaam ci ay sénégalais daan nañ koy signé di sàkku Alioune Sarr jugee ci bopp CNG ndax jamono jii lu ñu gis mooy saa sunu xëyee làmb ji dafay gën di am ay jafe-jafe